Dakar laa tudd waaw sama rakk bu góor laa fi seeti Samba Ka ñu téye ko fi depuis ñaari at ci accusement boo xamante ne xamu ci dara moom fiñ ko jàppe sa dëkku fi ñu Louga lañ dëkk reso Louga lañ dëkk dëkk bu mu wax yaa ngi dégg xale bi jàpp nañ ko fii depuis ñaari at kenn attewu ko dañoo sonn man kese la am man kese la am man maa taxaw yaayam mu ngi feebar jabaram doomam bu ndaw mu ngi feebar nañ ñu dimbali ngir yàlla ak rasuli même am bañu ñu yoon yoon kenn bañu ko parce que yoon yoon la kenn bañul yoon mais xale bi nañ nañ leen atte ñi def ñu téye leen ñi nga xam ne defuñu dara ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen kër ci seen njaboot yi sonn nañu ñun sonn nañu ba ci kanamu yàlla dañoo sonn nañ semaine bu nekk damay jóge dakaar man Nord Foire laa dëkk semaine bu nekk maa ngi jóge Dakar ñëw di seet si ko seet nañ ñu jàppale ngir yàlla ak yónnent bi ñu atte leen ñu atte leen ku def ñu xam ne kii dafa def ku deful ñu xam ne defoo du dégg ah waa suukar bi man nag musul am benn bés boo xam ne jotul budul semaine bi passé avant ñuy julli indil naa ko fi suukar ne ne jotu ko mais boobu kese la musa am beneen bi yëpp de doon jot waaw moom li tax mu waral loolu moom dafa màngoon fii dafa mangoon fii côté Mbooru bu nekk foofu loolu kese moo tax ñu téye ko fii mais ku fi xamu fi kenn xamu fi dara wóor na yàlla nañ ko atte bañuñu yoon def liggéeyam na yoon def liggéeyam nañ ko atte ba ñu xam moo def wala deful nañ ñu dimbali ngir yàlla ak rasuuli Macky Sall la ñuy waxal nañu dimbali ngir yàlla rasuuli ñu atte xale bi ñu atte leen ñoom ñëpp ñu téye fii bu fekkee ñoo def ñu xam bu fekkee defuñu ñu xam nañ ñu dimbali ngir yàlla ak yónnente bi loolu lu ma leen di waxal jërëjëf jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf man sama rakk lañ fi téye sama rakk laa doon seet si tey ñu ñëw ñu ma dañoo geraw te visite am waaw man Pout laa jóge waaw añ laa koy indi sama rakk bu jëndeer la jóge Kayaar lañ ko jële indi ko fii waaw moom ba léegi mu ngi indi léegi nanguñu koo àtte mu ngi ci biir am na fi weer fi mu toll ak ak semaine kenn àtteegu ko démb xale yi ñoo indi añ bi démb laaj naa ñu ne añ bi duggul nee nañ amuñu foofu teg lekkuñu ko loolu la ma wax nee na ñoo bañ a lekk indiwaat naa añ tey dugalaat naa ko xamoon na lekk xamoon du lekk ma dëgg yàlla ni soo ko jàppee da nga koy àtte ma xam li muy tëdd bu fekkee day tëdd mu tëdd bu tëddu nga génn ko mu ko mu ñibbi waaye nga teg dossier na nga woo koo àtte loolu baaxul ni soo ko jàppee rek ko li yoon santaane nga def ko si moom bu dee dañ ko war a tëdd mu tëdd su tëdd nga àtte mu génn waaye nit moom doo ne kër ak yaayam nga jël ko indi ko tëral ko fii àtte woo ko loolu nag neexoon coono mi sonn trop sonn trop soo ñëwee fii doo bala ngaa wax ñaari bas ñu la jógal wax bi wax bi jeex na waaw waaw dina am naa kii dinaa dugg man su ma amee si ñëwee dinaa dugg dinaa ko gis waaw lekk waaw lekk woon na si jot